Sidiya tagg na Serigne Touba loo xam ne lekk na junniy way ak juróom-benn téeméer ab diiwaan la def sëriñ Touba te ku ne xam na tollu ay Cheikh Sidiya junniy way ak juróom-benn téeméer tagg na ko Xaadimu Rasuul kon nag bu nu fi bëggee toog di tudd way yu nga xam ne moom la Cheikh Sidiya tagg Xaadimu Rasuul dana nu sonn lool wante nag mën naa leen ci indi loolu rek eh, ngir ngeen mën a xam. kooku fan la tegoon xadim rasul te nu jàll ci cheikh saadu abi cheikh saadi bu ku ne xam na ne setu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la kenn nattablewul xam-xamamit kenn nattablewul ak wilaayaamit lii may bëgg a li nag mooy li doxoon digganteem ak xaadimu rasul bi sëriñ Touba ñibbisee ci géej gi bataaxil bi mooy moom la jëkk jot bataaxil bu jóge ci moom mu di ko ndokkeel bataaxil boobee mu ko bind lii la ko ca wax gannaaw bu ma sante yàlla mi nga xam ne nii dimbale na diine ci ñibbisi goo ñibbisi gannaaw bu ma santee yàlla mi nga xam ne dëgëral na diine ci ñibbisi goo ñibbisi gannaaw bu mu tumurankeelee diine ci bi nga xamee ne tubaab yi jàpp nañ gannaaw bu nga xamee ne yàlla takkaayal na takkaayale na takkaayal na loosu jamono ci sa taar fa wurus bi nga doon takkale na ko jamono maanaam yaay taarub jamono maa ngi lay xamal ne bataaxit bi mu ngi jóge ci sa soppee bi nga xam ne bi bëggul ku dul yow donte yaram yi soree na it wante du doy lu mukk ci jàkkaarloo ak yow ak gise ak yow muy ki nga xam ne kii moo signé aw turam ci suufas lettre bii lettre bi mi ngi jëm ci sëriñ sang bu tedd bi nga xam ne bi kilifa la ki nga xam ne kii nosi bindeef yépp ci loxoom la ko yàlla teg ki nga xam ne kii ci muñ ci lay jotee maqaamam nit ñu baax ñépp ba nga xamee ne jot na maqaamam nit ñu baax ñi ci muñ googee ca la yéege ba egg ca pay ba nga xam ne bi doomu aadama musul la egg ca boobu pay maa ngi ñaan yàlla mu musal nu ci waru kan laa jublu ci boroom boroom lettre boobu may may dàkkental te tuddaguma aw turam mooy borom may yu rëy ki nga xam ni aw turam tasaaroo na ci sow ak jant kooka mooy kan mooy Ahmadu Bamba al waliyul kaamilu saadiq saadiqu fiihi qawlul qaa'il moom mi nga xam ne waxi waxi aji wax ja moom rek a dëggu ci moom wax ji arab bi waxoon ci moom dong la yey arab bi loolu la lan la waxoon mooy xalafa zamaanu la yaatiyanna bi mislihi xalisat yaminuka yaa zamaanu fa kaffiri adduna giñ nga man mën indi ku mel ne Serigne Touba waaye addina na la wóor ne fen nga gaawal kafaara sa ngiñ ndax ku mel ne xaadimu rasul yàlla amatu ko li waral ma di la bind lettre bi nag maa ngi lay xamal ne mustabshiruuna muhanniuuna li hada arrojo noo ngi lay ndokkeel di la xamal ne bét nañu bu baax ci ñibbisi gi nga ñibbisi gannaaw boo xamee ne daanaka rek euh, génnoon nanu àdduna ngir génnoon nanu àdduna te mënuñu woon nelaw ngir jàpp galatuwaa yu jàpp génne la Sénégal ba nga xamee ne dégg nañu ne ñibbisi nga ci lañu defe xasida ji nga xam ne gi moom lay bëgg a jàng dal di wax ne maadinuhu ajlathu minhu nasaara fa asbaxa fi tilka albuxuuri nudaara wa min sadafi albahri almuxiiti bada fa min talalu'ihi fihi alyuyuunu xuyaara fa ujbi liki min imtixaanin gada biha nudaaru alwara yaquutatan laa tubaara wa badrin muniirin gaaba fi algarbi summa laaxa min alsharqi shamsan rifaatan wa intishaara ويا عجبا باب المتاب مفتح لكل مريد رام منه جوارا هنيئا لذا الدين الغريب الذي غدا يتيه سرورا منكم وافتخارا mu ne xasida gi maa ngi ko jëmale ci ki nga xam ne kii mbellum wurus la woon bi nga xamee ne demagul ci géej gi waaye bi ko tubaab yi yóbbee ci géej gi ba delloosi ko wurus la wu ñu tëgg ba mën koo takk sëriñ bii nga xam ne bii nattu bi ko yàlla tegoon am nattu la boo xam ne bii dafa meloon ne wurus woo xam ne tëggaguñ ko ñu tëgg ko rek sëriñ bii nga xam ne bi bi mu demagul ci géej gi aw weer la woon bi mu ñëwee ci jóge ci géej gi ab jant la boo xam ne bii tiim nañu nun ñëpp nun ñëpp noo ngi mel ne ay sondeel yuy takk sëriñ Touba mel ne ab jant ni ab jant tiime ay sondeel ni la nu sëriñ Touba tiime ni ab jant gën a leere sëriñ ni gën a leere ab sondeel itam ne la nu sëriñ Tuubaa ëppe ak leer yéem naa buntu tuub ubbiku na ci bépp murit boo xam ne daa bëgg a dëkkaale ak yàlla maa ngi ndokkeel diine diine ji nga xam ne tumuranke woon na léegi diine ngi sigare mu ngi jaayu mu ngi tiitaru di wane ne ki nga xam ne kii moo may taxawal dellu si na ki ma doon taxawal dellu si saadibu ak xaadimu rasul nu jàll ci ki ki nga xam ni moo ëppoon xam-xam ci biir Mauritanie ñu di ko wax Hamidine wala Mouhamadou Baba waaye ñépp xam-xam ma fekk ko mu xam loo xam ne kenn xamu ko mu bañ a mu mu mu leeralal ma loo xam ne lii ñu bari ci xam boroom xam-xam yi danañu juum ca foofa wilaayaam nag wilaayaam nag am na ay tegtal yu wér yoo xam ne yi ak ay tegtal yu wér yoo xam ne yi ak te ay tegginam yu bari itam ay tegginam yu bari itam li tax ma wax ne moo ko ëppale ci àddina it mooy jamono bii nu toll ay teggin def cee bariwul ay teggin def ci bariwul ba tey itam loolu mooy li nga xam ne lii mooy li dox diggante Serigne Touba ak ku ñuy wax Babawal xamdi dëgg ngeen loolu nga xam ne moom la Babawal Hamdi seereel Xaadimu Rasuul dégg ngeen loolu nga xam ne moom la Babawal Hamdi seereel Xaadimu Rasuul naka noona itam nu jàll ci ku ñuy wax Cheikh Mouhamed wala Boddi wala bët yi mooy al aarifu sunniyul mardi yu moo may Cheikh Abdoulaye Niass bàyyub Ibrahima Niass wérg boroom xam-xam bu rëy la wala bët yi moomu lan la wax ci Serigne Touba mu ne inna wilayata wa tafawuqa Cheikh Ahmadou Bamba ala mashayikhi asrihi xafaha bishuhur xafahuma bishuhur gën gu Serigne Touba gën ku mu jamonoon teel ak wilaaya gu mu ëpp ku mu jamonoonteel te muy am wilaaya loolu dafa ko indil ay mandarga yu fees yoo xam ne kenn mënu ko weddi loolu la wallu Muhammadu Boddi kilifa ak tijaan gu mag googu loolu la seereel xaadimu rasul naka noonu itam jenn doomi baayam ji ñuy wax Moxtaarul Alawi bokk ci Idawali nee na inna wilaayata Cheikh Ahmadou Bamba shahidat alayha qaraainu axwaalihi xataa saarat bi manzilati alqata wilaaya ak Sëriñ Tuuba daf koo sàkkal ay seere def ko ñu gis ñépp xam ko mu leer nañ du lu ñuy demale ko fekkale naka noonu itam ku ñuy wax Mohammed Fall wëllu baaba al alawi tijaani moom moomu moog Sëriñ Tuuba ñoo bokk menn at mu ñu génnee àddina ci saay daana wax ne daana daana toog bu masaan saan toog ñuy tudd kenn ku baax ak ku am wilaaya mu ah man de mënuma waat wilaaya kenn ku dul xaadimu rasul amul kenn ku ma mën a waatal wilaaya ku dul xaadimu rasul man naa min alwara qabil qubi nee na mënumaa waat wilaaya kenn même Cheikh Tidiane mi ma yaakaar jël lu wér tamit mënumaa waatuk wilaayam kenn képp laa mën a waatuk wilaayam mooy xaadimu rasul loolu ku ñuy wax Mouhamed Fall wala Babal alawil murid Tidiane moo ko wax ab Mauritanien la dal di wax ne la tax nag ma mën a waat loolu moo di kilifa gu nekk Mauritanie ngeen di ko jiiñu wilaaya kooke wilaaya xaadimu rasul rek la mën a waat loolu moom laa def ci prôné kooku mën na maa watu wilaaya ma ne jàppante relation googu daan dox diggante Serigne Touba ak ñi mu jamonoonteeloon yemul rek ñi mu jamonoonteeloon ci Sénégal yemul it tam ñi mu jamonoonteeloon ci biir Afrique tuddal naa leen ñi mu jamonoonteeloon ci senegal tuddal naa leen it ñi mu jamonoonteeloon ci biir Afrique ñu nekk ci fu mel ne Mauritania ak fu mel ne Guinée muy Guinée dafa yemul foofu rek dafa jàll ba Asie sax amoon na ca ay nit yu mu jamo ñu mu amoon relation bu dox seen diggante ku ne xam na ne ku xam géographie danga xam ne euh, Lubnaan muy Liban ci Asie la bokk dafa am ba loolu moo tax Yusuf na Ismaïl an-Nabahani moomu am relation ak Serigne Touba relation googee nag am digganteem ak Serigne Touba rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy ka ko dox mooy ka dox relation ga ba mu am la mu ko doxee moo di Yusuf na Ismaïl an-Nabahani ku ne xam na demoon naa tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bii jàpp na ni amul kenn ku nga xam ne kii mel na ni moom ci tagg rasulullah daana ko tagg ba bu jàkkaarlook moom daana ko tagg ba nga xam ne bi fu ko neexee rek mën a jàkkaarloo ak rasulullah ba mujj mu jàkkaarlook moom ne ko waaw xanaa li ma la wax di benn nit mësula ko wax mu ne ko ah am na ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba dëkk Touba kooka lam ma wax asaka ji sax waxuloo ma loolu mooy li nga xam ne di ne laa leen relation ga loolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ko dox ndax moo ko xamal kooku ba mu ko ko xamalee yàlla dogal ne ko Cheikh Ahmadou Bamba ca Touba yàlla gol Touba am na bu nekk ci biir Guinée am benn euh, benn saraxule bu fa nekk wala xasunxe bu ñuy wax Mamadou Fodé moom bu ñuy wax euh, euh, Karamoxo Banfo Karamoxo Banfo boobu fóore la woon bu rëy bu am xam-xam jóge woon fi nag di ziyaara ji xaramayni sharifayn yàlla atte mu wëndeelu ba egg Beyrouth ne dégg fa Yusuf ne Ismaïl Nabani mu ne dina ko ziyaare moom Karamako Banfou mu ngi dëkk ci Touba ga ca Guinée ba mu demee ba nuyoog Yusuf na Ismaïla Nabahani mu laaj ko mu ne ko maa nga dëkk tuubaa ca Guinée mu ne ko na nga tudd mu ne ko Karamako Banfou mu daal di jàpp mooy ki ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tegtaloon ndax tur yi xaw naa niroo Touba gi mu ko waxit te ne ko ma nga ca Afrique niroo na moom it waaye bi mu ko gëstoo tuuti daal di xam ne du ko ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw Touba ndax genn la mu ne ko ah déedéet am na geneen mu ne ko googu fan la nekk mu ne ko ma ca senegal mu ne ko ko sos mu ne ko ku ñuy wax Ahmadou Bamba mu ne ko waaw kay waaw kooku fu mu ne mu ne ko kooku kat tubaab yi dañ koo jàppoon sànki ko mu ne ko ah dañu ne dañ koy sànki waaye duñu ko sànk dana dellu si bu dellu see nag di dindi téere bu mu taalif tudde ko saadatul saadatu nii téere boobee ay salawaat yu nga xam ni xot yi def nañu ko ci rasulullah sallallahu moom la ca dajale téere boobee amee naa ko mu nga ci samay téere ak téere bu ñuy wax anwaarul muhammadiya anwaarul muhammadiya siiratu rasulullah sallallahu alayhi la moom la alxaaji malik way muy miimiya ñaari téere yooyu la dindi jox karamu xoban ko ne ko sëriñ tuuba tubaab yi dañu ko jàpp yóbbu ko waaye dana ñibbisi soo delloo ba dégg ñu ne ñibbisi na daldi di waaxu ba egg ca moom joxal ma ko addiya jii ne ko maa ngi sotanteeg moom wala rek dénk naa ko sama bopp at naa àllaaxira na seen xel delluwaat na ci kan mooy Yusuf ibn Ismaïl an-Nabahani xalaataat leen itam kan mooy Yusuf ibn Ismaïl an-Nabahani mii dénk Serigne Touba boppam loolu moo waral ba sëriñ Touba. yebale woo Cheikh Sidi Mahmoud wala afalwaat ak Cheikh Abdul Wadud ne leen kaay leen demal ma makkatal mukarrama ziyaareel ma ndax maak yéen noo waroon a ànd dem makka ziyaare ji rasulullah sallallahu alayhi man dafa am lu ma jaayante woon bi ma leen di waaj ngir war a ànd yéen dem ziyaare ji rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ma fàtte woon ndax keroog ma tubaab jàppee dama jaayante woon ak yàlla ne ko fas naa yéene du ñu xam lu ma bëgg mukk te dañ ma indi njaareem tëj ma fi kaso te bu ma fekkente ne maa ngi bëgg a dem makk fokk ma tàggu leen te bu ma leen tàggoo ñu xam lu ma bëgg loolu moo tax ma bëgg ngeen dem siyaara ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bu ngeen fa jógee ngeen jaar ci yusuf ibn ismail an-nabahani ne ko jot naa ziyaaraam boobe dégg naa yi li nga xam ne moom la wax nangul naa ko ndax bi Serigne Touba ñëwee Mauritanie bañ jëlee ko fa yóbbu ko Jolof mu toog fa bañ jëlee ko fa indi ko njaareem ba ñu toogee ba mu yàgg karama ko banko moom mu dégg ñu ne Serigne Touba ñibbisi na muy dox ba egsi njaaram fekk Serigne Touba dal di ko jox ñaari téere yooyu ne ko Yuusuf ne Ismaïla moo tax nag Serigne Touba yóbbaal yóbbante aale ñaari ñooñu ne leen su ngeen jaaree Beyrut na ngeen wax Yuusuf ne Ismaïla loolu ba ñu fa jaaree wax ko ne ko seriñ bi nuyu na la nee na ndaw la nga yónni woon jot na ko na nangul na la sa la nga ko wax la nga waxoon jël nangul na la addiyee ja it euh, jot na ko it mu ngi la cay gërëm ba nga xamee ne loola am na wax na ne ba nga xamee ne loolu am na Euh, def na genn xasida goo xam ne gi sama càggante rek ak sama euh, ñàkk kii moo tax mukkaluma xasida ga euh, xasida ga si ma doon jànge ndax ñoo ñu ñu ñu ñu sëriñ bi yebaloon ñu dem di ziyaare ji rasulullah ñooñu yenn gàdd ci laa doon jànge bi ma nekkee Mauritanie loolu moo tax xasida ga amoon ci ñoom sama ñàkk fayda ak sama manki moo tax xasida ga jotuma ko woon ba mokkal ko wante mën naa leen ci taral wenn bayit wu ma mokkaloon woo xam ne bi bayit wa daanaka sax ëmb na lépp lan la ci wax daf ne man faatahu ahmadu almuxtaaru min mudarin wa faatahu xaadimu almuxtaari maxbuun képp koo xam ne kii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faat na la xaadimu rasul faat la ku perte nga koo xam ne kii amuloo dara ku sooy nga ku amul dara li gën a gàtt Sëriñ Tuba amoon na relation gu sell ak diggante mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teeloon su waa ñum di kilifa yi diine wala ñuy kilifa yi politique limal naa leen lu bari ci ay kilifa yi diine ci ay kilifa yi diine yoo xam ne yii yu jamono yu maase ak Sëriñ Mor Anta Sali ci saayir lañ ak yoo xam ne yi dafa maase ak moom ak yoo xam ni dañoo jamononteeg moom ba noppi dëkk ci réew mi ak ñu dëkkul ci réew mi ñan ñooñ ñëpp kenn ku ci dëkk defe naa ne mosal naa leen ci li nga xam ne lii moo dox digganteem ak Serigne Touba ak fa mu léegi nag dama leen a xamal ne ñi mu jamononteeloon ñëpp relation gi doxoon ci seen diggante ak respect bi amoon digganteem ak kilifay diini yooyu dafa yemul képp ci kilifay diini yooyu dafa jàlloon ci kilifa kilifay politique yi nga xam ne ñoo fi nekkoon. ndax ñoom ñépp daanañ ko wormaal daanañ ko respecté bu baax ndax Sëriñ Tuuba def daan ëmbal aw yiw ñépp da daan bëgg ku nekk itam ngir yàlla mi ko bind kenn ku ci nekk ak yàlla ma ko bind lay sàmm ci moom donte bëggante gi dana ëppaate bëgg gi muy bëgg nit ñi itam dana dana rawaate itam loola moom kenn ku ci nekk la muy bëgg ci yow lay la muy jëkk a bëgg ci yow mooy respecté ko ci yow moo di bind ga la yàlla bind loolu nag li ko waral mooy aji bëgg te bëgg gay dëgg ci moom day sàmmoonteeg lépp loo xam ne lii lu tax ca lam bëgg la lu taq ca lam bëgg rek boo nee nit dama koo bëgg walla nangam jii dama koo bëgg te bokk ca loolee te nga nga sàkk ci ab séparation rek sa bëgg def na loolu moo tax rasul Cheikh al ab jullit ak jéefar ak ñépp daleen leen bëgg ngir bind gi nga xam ne yàlla leen yàlla da leen a bind da bëggeel ga mën naa rawaate mën naa ëppaate ndax jullit bi nga xam ne bi moom daa nangu li ko yàlla digal moom moo koy gënal nag mbindeef mi nga xam ne bii li ko yàlla digal nanguwu ko waaye nag bëggeel gu jëkk ga nga xam ne gi da cay sàmm bind nga ko yàlla bind loole ma nga ci xaadimu rasul tegtal gi ma am ci ne mboolem ñu jamonante woon ak moom ormaaloon nañ ko fonk ko ngir rafetal gu muy rafetal rafetu jëflante gu mu jëflante ak ñoom loolam la cay misaal mooy digganteem ak lajjoor lajjoor Lat mi nga xam ne moo doonoon buuru Kajoor umpu leen ne Lat bi nga xamee ne dàq nañu Majoojo dameel Majoojo folli nañu ko te mu dellusi ci am réew ci ci conseil législatif bi nekkoon Kajoor ba mu dellusee ba ñu fol ko falaat ko mu nekk buur dafa daldi forcé Sëriñ Mor Anta Sali indi ko ci wetam ci pataar ngir mu di ko dimbale ci mbiri diine féete woo ko itam mbiri atte ak di ko dogal di ak di li nga xam ni moom la atte ndax mbooloo mi mi séqoon Lat Joor amu ci kenn koo xam ne kii am na confiance ci kaw ci yow ni mu amee woon confiance ci sëriñ Morante Sali waajuram wa nag muy sëriñ Morante Sali ba mu xalaatee loolee dafa daldi nangu li ko Lat Joor sant ngir yaakaar na ne ñëw foofu di àtteel Lat Joor ci yoon lëf la loo xam ne lii luy dimbale diine la te it bu ko nanguwul day wut keneen koo xam ne kii diine du ko jaral dara mu di ko àtteel àtte yoo xam ne yi du doon yu jub di ko àtteel ci bakkanam rek loolu moo taxoon mu nangu loolooy ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan la wax dafa wax ni la in yahdiyanna allahu bika rajulan waxidan xayrun min ad dunya wa ma fiha yàlla jubale ci yow kenn nit rek moo gënal yàlla àdduna ak li ci biiram loolu moo taxoon bi ko Lat Joor proposé loolu mu daldi d'accord ak moom ci nangu ko nekkal qaadi moom sëriñ Mor Anta Sali ñu daldi koy indi dëkkal ko fu ñuy wax pataar Lat nekk cilmaxa mu may ko bisub altine di ñëw ci moom di ko atteel yeneen bi yi ci des yépp mu nekk ko di jàngale ci ay taalibeem ci pataat ak di bay ci loolu nag ci la Lat amee relation ak Xaadimu Rasuul Lat ay xeex yu ëpp ko doole ñu rey ko di ko xee di xeex ak moom jàpp leen ay jaam séddale leen nag ñi nga xam ne ñii ñoo doon xeexal Lat Joor comme Birima ko du maram ak Amadou Madou ma Xureja bare ñaan bon bi nga xamee ne ñooñu séddale na leen jaam yi Serigne Touba Serigne Moranta Sali Serigne Touba daal di ne Serigne Moranta Sali xamalal Lat Joor ne ko li mu def du jub lu tax du jub moo di ñii mu jàpp te ñu doon xeex ak moom te àndoon ak Amadou Cheikhu ñooñu duñu ay jaam warul leen def ay jaam te it lu jubadi la def ba mu waxee loolu te itam bos boo àndeek moom ci jubadi yi bu saxalee bu jubadi bi saxee rek yàgg moom a ci ànd dal di koy xamal lu mu gën a gaawee ne ko li nga def du aw jub wala ma tàggoog yow sëriñ Mor Anta Sali dal di xamal loola Lat Joor Lat Joor dal di dégg loola ci sama doom mu ne ko mu dal di koy wax ma kala dal di woo xaalu yépp wax leen ko xaalu yépp maase ne ko ngóor sii de boo ci jógul takk ko pexe dana la dana la la mankil dana la dana defi loo xam ne lii ëllëg si biir da nga ko rëccu sàkk ci ay pexe nan nga ciy sàkke pexe nag moo di wool fóore yépp ñu dajaloo nga woolee nga nga kii leen mu daldi sant majaxate kala ne ko na nga woo fóore yépp ñu teew te woo Ahmadou Bamba mu ñëw wax fan la dëkk ba ne jaam yi ma jàpp ci ñi ma doon xeexal Amadou Seexu ay du ñu ay jaam fan la ko teg ba nga xamee ne ma jaxati kala def na loola ñu woolu Serigne Touba mu ñëw ba ñu woolu Serigne Touba sax dafa jëkk gàntu bind lettre Lat Joor dégg nga koy xamal ne ko bi anni lam atasaaqal an ityaanikum min takabburin wala jabarut walam ahab muqaatalatakum walam ashuku fi fatwaaya fa ahaabu munaadarata al ulama walakin at-tariq kama qaala ahadu al ulama li ba'd al umara ya'ti bi ahad gis naa sa ndaw li nga ma woolu ba gantuwuma ñëw ngir xeeb la ak yàpp la loolu taxul ma def loolu gantuwuma ñëwit ngir ragal ne ay fóori laa fi fekk te bu ma ñëwee duma ma xam lu ma leen di wax lan moo ma tee ñëw loola moo lan aw yoon des say jaar waaye du jaar ci kenn aw yoon des say jaar yéen a ma war a fekk si waaye man waruma fekk kenn bi nga xamee ne loolu am na sëriñ Mor di mora mora di ko di maslanteeg moom di maslanteeg moom ne ko demal wuy ji rek ba mu muñ ci ñëw bi mu ñëwee wuy si ko ma jaxate kala ne ko yow yow sëriñ yow dégg naa li say bàyyi atte yaay ki ko weddi ne du dëgg sëriñ Tuubaa joxar bi ko ne ko ba ma kat te bu ma ko waxat te du ma sa morom xaalima jaxati daal di jóg fa mu fa mu toogoon daal di këlëb daanu ko di xam tiit di lox mbir ma daal di dog foofa ba mu delloo ci la binde xasida googu na di ko tuubal ci lay waxe nan qawli ba ma wa bu ma halan kafawta bi qawli innani meruma waaw da da xasida ga mu ko bind da caa def lenn ci wolof lenn ci arab ndax daf ko wax ne ko yow mi nga xam ne mii wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak bu ma ko wax wax jama la wax ne la bama ak salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halal maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sayrin